xéewal ga ñëw na njariñ la yegsi na ngëneel yaa nga ca 3S trading société 3S trading ci njiital Baye Dambay moom Serigne Saliou di représentant exclusif bu société Matforce ci diwaanu Touba ak li ko wër moo leen andil refroidisseur d'air refroidisseur d'air yi du ay climatiseur waaye njariñam moo mën fuuf bu climatiseur yi ngeen xam moo ko gën a noppale te it moo gën ci yéen refroidisseur d'air yi dafa économiser seen courant ba ci lu toll ci 80 pour cent du lakk dara ci courant neex a jëfandikoo monter wala di ko fixer ba di ko wékk ci ay mur fu ngeen mën di nekk fu ngeen ko bëgg man ngeen ko faa utiliser moo xam ci espace fermé la wala espace ouvert ci biir néeg wala ci biti ci mbooloo ci ay bâche ba ci ay cérémonie officielle li ci gën a neex nag moo di refroidisseur d'air yi mën na di tasaare xet gu neex foo ko bëgg ak parfum bi nga bëgg refroidisseur d'air yi fu la neex mën nga ko faa yóbbu am na filtre allergie am na filtre poussière am na filtre odeur ñi amee sinusite wala ñi amee asthme wala boog ñi amee problème ñooñee nañu jëfandikoo refroidisseur d'air yi amul benn jafe wala risque bu leen di jural te bu ñu la ko jaayee dañ la koy garantir atum yàlla fukki weer ak ñaar yoo xam ne lu ci sikk dang ñu koy indil bu weesoo looleet am na ay pièces de rechange ngir lu ci paan ñu changer la ko ku yeex ñàkk ku ci bëgg ñoo nga Touba Daaru Xuddoos ci yoonu beleel wi laata nga yegg ci pharmacie Masalikul Jinaan boo jugee ci station Daaru Xuddoos bi wala boo jugee ci tali sëriñ Bass Abdou Khadre bi ba ci yoonu beleel wi nga jàdd sa càmmooñ gannaaw mbedd mi ngay jëkk a jot place bi mi ngi ci angle bi ci sa càmmooñ làmmoñ wala ngeen mën ñoo woo ci 76 578 98 32 77 346 26 27 numéro téléphone yi ñu leen jox am na WhatsApp avec Matforce la qualité est toujours garantie société 3S trading ci njiital Baye Dambay moom Serigne Saliou mi ngi leen di sant di leen gërëm te di leen xaar.